asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyuwaat baax baax di leen kontaane si topp ngeen di topp si njeexanteelu ay bis yu nekk rek li gën a fës si internet bi si ay bis yu ñu génn dina leen di jàngal ponk yi nga xam ne moom la internet bi gën a partagé moom na gën a waxtaane bokk na si nga xam ne mooy diggante Mansour Faye ak Sonko tàng na jër jamono bi ñu toll si internet bi ba tax na internet bi ñu bëri partagé a baax baax waaye tamit diggante Sonko tamit ak si ay a baax Sonko bàyyiwul gul benn na fu toll nii maanaam opposition ak nguur gi ak lépp la ba xam ne a baax waaye moo gën a fees si nga xam fële sa wakaam di terme sud la gën a xam mooy njiital militaire militaire yi nga xamni ni guddi ñu tollu ak ñi nga xamni mo nek ci arme bi seen xex bi ba internet yi di ko partagé bu baax baax baax mom tamit mi ngi ci xet mu jëk gaay yi di ko partagé bu baax di ci waxtaan ni militaire mom ak arme bi lepp li nga xamni mom moy jamono bi ñu toll ni mëna na ñak ci li nga xamni moy xew guddi ñu toll mëna nañ ko lijjël seen biir way ciowli dina ko gëna a yaatal leg leg ci ay ci leg leg si nga xam mo jexale ci ponk bobu rek daanaka damay dugg ci magal gi tam magal Tuubaa gi ma ko seigne wax waxna wa amna yenen xew-xew yi ci xew tamit si biir seigne Tuubaa seigne Muntaxa moy xalifa general kullu tare xam mouride tamit waxaat na si bu baax waaye yaatal si ay mbir yi nga xam ne xew na si biir internet bi gars yi partage na tamit yeneen ay mbir yoo xamante ni mi ngi si sëñ Mountakha moo ko leeral sëñ Mountakha a yaatoo waaye mu si jógee tamit damay dugg si wàllum baax baax baax baax baax fan toll internet bi tamit képp koo xam da nga yëngu si wàllum làmb wala nga bëgg làmb rek yaa ngi si yaa ngi koy yaa ngi koy bëggee bu baax baax ndax yëngal gu mu yëngal làmb aca dañ koy leeral nag si ay ponk yu nekk ni ñu yaatal leen ko sekk nu mu gën a yaatoo muy Mansour Faye ministre du développement communautaire guddi ñu toll nag of nag da ko woon si ay bis ñu génn waaye nag dafa lànkoon nit du dem waaye nag Sonko mi nga xam ne moom mu bàyyiwul dara moom moo ko dégg nag ginnaaw bu mu ko génnee dafa tàkkale Mansour Faye ñu yàq ko lu mel na xam ne ko lan moo tax wuyju ndax la am lu nekk si ginnaaw wala ki nga xam ne mooy Macky Sall di gorom moo nekk si ginnaaw loolu dina leer dafa war a wujji loolu loo warul dara taxaw mu tax mu toog lànk bañ a ay moroom wuj dafa war a wuj leeral li nga xam ne moom lañ koy doyee waaye Mansour Faye tamit tërëwul benn yoon pour tontu ko ndax Mansour Faye lu mu ko gën a wax mooy nan yoon nekku si loolu rek sa place sa place amoo leen loo may wax ndax bëgg yàggul dara toog nga fii ngir bëgg a gis mag Sall di ma saraxu ak di ma ñaan pour ma gis ndax ma booleel ak mag Sall pour nga gis ak moom waaye ko xam nga ne moom moom làmmañ demul da koo tontu si tàng tàng bi ni kon Mansour Faye yow waxoo dëgg li nga wax dara amu si doo katu dëgg loolu noonu bu fekkee dëgg la dëgg la te li nga wax ne na nga génn preuve yi Sénégal yëpp gis na nga wax kañ la ak lan laa ko doon doyee ak waxoo dëgg waxkatu doo waxkatu dëgg loolu nag Mansour Faye tamit Sonko mu ko tontoo si loolu moom tamit génnaat na moom du ko tontu ko ni ko Sonko man du ma la tontoon teg yow waaye internet bi ñu si gis rek mooy Sonko bàyyiwu benn yoon noonu njiital Pastef li daal wane na boppam muy Ousmane Sonko wane na boppam ni moom moo toog si opposition bi bi moo nekk tamit di tàkkale nguur gi baax baax muy leen dara moom la gars yi gis guddi toll mel ne nag yëngutuwaat na baax Sonko bu nguur gi yëngutoo rek Sonko moo ko yëngal loolu la internet yi gën a partage baax ba mel ni kontaan na si baax waaye bàyyiwul benn yoon muy goro bi di Macky Sall Macky Sall mi nga xam mooy président de la République nee na ko yow Macky Sall yow nee dégg naa nga ni li nga xamne moy moy mooy li nga tegoon moy projet nga tegoon ci inondation bi dimbal askan dama bëgg ne nga nak taxaw nga pour kep ko xamne bëgg na sé waxtaan yow nak ko ne mu waxtaan yow léegi nak ma ngi taxaw dula la déglu yow ki nga xamne moy Macky Sall président de la république taxaw na fekkee li ngay woote dëgg ci yow ta gaynde gi ni wax mo ngi ci yow man taxaw na pour déglu man nak Sonko loolu la yakamti won nee nak mu ngi déglu ki nga xamne moy président de la république ni Macky Sall pour mu yaatal point yoy ci digënta mom ñom ñaar ñi waxtaan ko melni Sonko mom day yëngal internet bu baax ba ba tax na sénégalais yu bari guddi tool ci internet mom la ni gis fo kon ko gis foo tourné rek da nga koy gis gaay diko partager bu baax baax man seen internet di content nan si moom waye tamit dañuy yaatal point bi nga xamni tamit moy buñu jéxalé ci ngeen mo xamni moy politique bi dañuy dugg ci point bi nga xamni moy logement yi la fa logement communauté de logement fonctionnaire yi nga xam mo nek fele sa Wakam di nek si terme sud commune bi terme sud xéen xeex bi nag si internet bi ëpp na jégg na doyo xeex bu metti la ban yaakaar ni sax internet yu bëri internet yu bëri daal di bind ni daane blessé amna fi waaye ay mort tamit amna fa waaye mort am fa ay blessé mo fi am nag li ko waral nak moy ñi nga xamni ne ay militaire ay ay atuk militaire la muy na famille yoo xamante ne seen seen waajur ay militaire la woon danoo mujj seen militaire ñii seen waajur génn àdduna ñii seeni i waajur ñu ngi fi waaye seen doole demeetul noonu mais nag daam dat boo xamante ne dañ leen koo jox mooy bu date boobu jotee dañuy génn léegi nag danoo ñëw di leen génn ñu lànk ñoom duñu génn ñoom nag danoo jàpp ni Macky moo dox si ginnaaw waaye nag ñoom gëmuñu loolu moo tax xeex ba xeex bi jàpp na waaye daal ay bis yu ñu génn moom benn mort amu fi xaw nag si ay bis yu ñu jëm ñu ñaan nag mu coow la daal di yem daal di yem foofu noonu Macky Sall wax si jóg si nu mu gën a gaaw ndax askan wi ñu ngi koy sàkk si ñoom ndax mbiri armée daawul doxee noonu bu ñuy jeexalate point boobu rek daal dugg si xam mooy màggal gi guddiñ toll mooy actualité moo nekk si kaw سري منتخب خليفة زرنا كل تاريخ موريدة ممنك جننا وقسي مغلق ننا غني نلين أكير دللين تتغلين وينك نلين توبطا نموارة وينك غني يخاف نيو نيو ليخاف نمومنا نقولي دقلة تمو جمعنا بي أغلف خيو مي فيور بي دمباس مي نن نن توب سي يخاف نمومنا ني أسكن بي دي وارا توب مومنا أسكن بي دي يخاف ني وارا دخلة مي نجو نقولي مومنا دقلة مي أتابي مومنا دقلة مي ماسكيك set gag yoyep ne nan top si waaye tamit gërëm na baax a baax Macky Sall ndax nee na lu mu nekk rek Macky Sall ma nga sa jàppale na ko baax a baax ba lu mu soxla rek nag benn juróom-benn fukki nag euh, juróom-benn fukki ak ak yoo xam ne duuliñu bi nga xam moom moo ko moom yóbbu na fa lu takku tamit man sëñ bi gërëm na ko si loolu baax baax man tax nag internet partagé waat ko mooy li mu bokk si tarix tarixa bële ba pare ñëwaat tamit di la may def Tiwaawan moom lay def Touba loolu la internet yi bu baax ba tax ñu partagé moo tax man di waatale leen point boobu waaye tamit des na tamit si diggantam mooy diggantam mook soxna Aida Diallo soxna Cheikh Béthio ji nga xam ni moo fi nekk guddi ñu toll nekk nekk si ñu jiite yenn si ay ay cantaakun ginnaaw nag bu mu yóbbee si ay nag yi takk yóbbu ko Touba sëñ Mountakha da koo delloowaat jëlu ko ndax nee nag la mu ko digle woon ak la mu ko waxal ne doxaleel noonu doxawul noonu moo tax tamit di nanguwul yooyee àddiya tax na nag soxna Aïda Diallo guddi internet bi partage waat na ko bu baax a baax daal nag soxna Aïda Diallo jot na nag mu teggi tànkam bu fi muy teg tànkam internet yi dañ koy partage bu baax di si waxtaanoo bu baax baax su ma jeexalee si loolu rek damay dugg si wàllum ak sport bi mooy ëtt tàggat yaram bi bokk na si li nga xam ne mooy

le 9 octobre Aliou Cissé nag dafa si ki nga xam ne mooy Diao Kayité moo tax ñu waatuñu si liste bi danoo nekk si yeneen yitte ndax danoo mënu ñëw ndax danoo blessé na samp nanu laaj si biir xët mi ba pare laaj ni Aliou ni ko ana lan moo tax su ñetti joueurs yooyu anduñu ko ndax danoo nekkatu si liste bi danoo nekkatu si équipe nationale wala lan moo xew Kara tamit gisatuñ ko si tamit si équipe nationale ba tey tam moom tam ñëwul man internet bi sax ñu bëri moom jërul relaté ak turam parce moom xam na ni jàpp nañu ne dina ñëw guddi tool si euh, équipe nationale bi waaye nag ñooñu ñëpp dañ seen xel dañ koy bàyyi si ñoom ndax soxla na leen baax a baax waaye dañuy desante tamit jeexalate ko sunu làmb muy ëttu làmb ji suñu yenn site internet ñu ko xamal ci Balla Gaye 2 triple S le lion de Guédiawaye doomi Double Less yëngal na internet baax baax yëngal làmb ji képp kuy bëgg làmb rek guddi tool kontaan nga si moom ndax Balla Gaye 2 ginnaaw bi nga xam ne ko dékk micro seen benn site internet seen mbokk ñoo ko dékk micro laaj ko ni ko Balla Gaye 2 ana guddi ñu toll si loo nekk mu ne daal lu la mën a xamal mooy mbëri di kenn ñoo ma si ñime muy ñi ma daan ak ñi ma daan ñëpp kenn ñi moo ma si ba tax na loolu nag ki nga xam ne moom du ko si boole waaye Bombardier tamit di tamit tarru benn yoon tamit wax ni damaa nekk si màggal gi nekk safar bi guddi ñu toll waaye su ma tourné dinaa wax lu gën a pire ñoo xam te ne ñoom buñ ko mëna dégg baax na buñ ko mënul dégg baax na waye doomu duba les ji daal lu ma la mën a xamal mooy yëngal na làmb ji baax ba ba xam ñepp ñi bëgg lamb ku ci melni bakay Mbay ak ki xamne moy Boy Kayra ak ki xamne moy ne mooy Gris 2 di ma mbërëm moo xam ne nekk sa face mom tane génnaat ne Balla Gaye de guddi tol daal ki di bakay Mbay mo xoloon ni Balla Gaye de daal bo ci ma lo ci mëna xam moy lamb bu yëngu to rek moko ko yëngal mooy ki nga xamne ne guddi tool moo nekk toog si làmb ji mom bu lamb neex rek moko neexal Balla de da fay yëngal lamb waye nak da fay provoquer gaay rek pour xam naa ne gaay bëgg bëre rek mom Balla Gaye de lol lol nak loolu la bëgg loolu Bécaye waxee kàddu yi Bécaye Mbaye la lii la leen indi woon si xët mu njëkk di leen si jéggalu baax baax li si juum rek nga xam ni sunu matadi la waaye li si jub rek nga xam te ne bëgg ngeen bëgg rek di kontaan di leen ñaan ngeen wéy di abonné si site bi di Diaspora Media TV di leen kontaane baax a di kontaane sama techniciens yi ñu nekk si ginnaaw ko su mel El Mouride sama DG Diop maa ngi lay ziar baax mu nekk si réalisateur bi kontaane leen baax baax di leen wax ni ngeen wéy di abonné di ñu xaar si beneen numéro si ay bis yu ñu jëm si njeexantal semaine bi nekk asalaamaaleykum